huwa moom yàlla day allazi ma ki nga xam ne anshaakum bind na leen ci ak njëlbeen wa jaala mu def la lakum ñeel leen asamaa dégg ga wala absaara ak gis ya wala afidara ak xol ya xalilan néew na lool maa tashkuruuna lu ngeen di sant yàlla kon yàlla mu defal bët yi ak nopp yi ngeen di dégg bët yi ngeen di gis ak xol yi ngeen di jàppe ay mbir suñu borom ngeen defal loolu da waroon ngeen ko sant ci cër yooyu ma leen cërale ne ngeen ko sante mooy bët yi ngeen bañ cee xool lu bon euh, nopp yi ngeen bañ cee dégg lu bon xol yi ngeen bañ cee dugal ak kiñaan waaye lépp loo xam te ne nii jikkoy xol la ju bon yooyu yëpp nag bu ngeen ko defee bu ngeen ko defee kon day wane kon néew na lu ngeen sant yàlla ci seen i cër kon kon jaam bi daa war a sant yàlla ci ay cëram bu amee ay nopp mu xam ne am nañu ko amut mu sant ca yàlla di ci diglu lu baax bët tamit noonu ay tànk yu mat sëkk ak loxo yu mat sëkk tamit bu ko amee mu xam ne am na ñoo xam yàlla xañ na leen ay tànk am ñoo xam xañ na leen ay loxo mu sant ci suñu borom kon di ko jaamu loxo bi mën cee jàpp lu bon tànk yi mën cee dox jëm fu bon niki noonu tamit bu ko yalla maye am xel ak xol bu rafet mu xam ne am na ñoo xam yalla xagn na yeen am xel ñu nekk ay dof kon mom mu sant yalla ci lool niki non ko yalla maye xol bu rafet mu xam am na ñoo xam tamit seen xol xol yu bon la am duñ def lu baax mukk te ñu yéene lu baax yow yalla maye lool kon sant ci yalla kon bu baaxa baax di gën ko yok motax yeen yonent seen wax ni bo gisee ku wañiku ko xam te ay cëram da wañiku mu dof wala yu mel non na nga wax ni yalla ma ngi lay sant yow bi nga xam musal nga ma ci li nga natto sa jambi yow bi nga xam musal nga ma ci li nga natto sa jambi mu wax nii qul waxal yow muhammad ni leen huwa moom daal allasi moom yàlla mooy ki nga xamante ne nii dara akum teg na leen fil ard ci kaw suuf si wa ilayhi jëm ci moom nag tuhsharuun li leen di pang yàlla daal moo leen bind teg leen ci kaw suuf si teg leen ci kaw suuf si wërsëgal leen leen defal xéewal yu bare bare bare bëri loolu nag la tax mu def ko moom suñu borom tabaaraka wa taala mooy ngeen jaamu ko te xam ni boo ëllëgee ci moom ngeen di mujj kon kon ci àddina te jàpp ne dafa ñëw rek ngir amul leen lu mu fi war a dox si kooku moom dafa gëmul yowmal xiyaam waaye ku gëm yowmal xiyaam di nga xam ni suñ borom dala fee indi tasaare la ci kaw suuf si teg la fi ngir ëllëg nga mën a delluwaat la la nga doon def mu fay la ko comme ni ñu ko waxe woon